éducation si la avenir dëkk taxaw suñ ko sàgganee sàgg nañu lépp dama noon fii ku ma doon fay journée dix mille wala quinze mille maa bañ wante nag jëkk bi jaral na ma ma def ko si si si volontairement duñ ma fay dara nag ak ñeneen ñii ma si àndaloon ndax xam naa leen te bañ ko tàmbali nag presque boo ko seet deux mille deux mille deux la jusqu'à deux mille vingt ku nekk nag fii yàlla lay dogale école bi ibbi yàlla dogal ne école bi mu ngi ibbee si loxol am ma Gueye dañ ko sant yàlla ku nekk rek fi ko yàlla jaarale ndaxte ñu nekk jéem nañu man xam naa si dara demul bi yàlla ñëwee yàlla jox ko doole ju mu ko mën a yeggali te moom wax na ko toog naa waxtaan ak moom sama mag la mais dama naka mag gi na nga ko teg fële ndaxte yaa ngi jobatu ñun ñëpp xool ma nag en tant que citoyen lii nga war a def si man ma ñu waxante ko. moom lii mu jiital wax na ko mooy éducation éducation moom priorité am la ko def te mooy ndamal dëkk bi dëkk bu jox ci éducation nga jóge ku daanu ci éducation nga daanoo. Euh, parce que mën naa wax ni mooy maire bi nga xam ne du toog ñetti weer te déggante moom moom day yëgat téléphone sax di ma woo di ma wax rek ci mbirum éducation ci projet bu mu yëkkati waxtaan ceeg man laaj ma ci sama xalaat. laaj ma ci ma jàppale ko ci wax dëgg yàlla loolu dinaa ko sedde ci kanam population yëpp éducation da ko ñor parce que dafa xam njëriñu éducation monsieur le maire dafa comprendre ni réew mënul la développé te éducation amu fa njàng mooy doxal réew fi mu nekk ni ba léegi nit ñi gëmuñu loolu malheureusement parce dañu yaakaar ne jàng pour am liggéey la te njàng du pour am liggéey kese njàng pour sa xel ubbeeku la njàng pour nga xam àdduna la njàng pour nga am ay jikko la njàng pour nga mën a def lépp loo bëgg a def ci àdduna la muy njàngum école nasaraan muy njàngum arab muy njàng bépp alxuraan ak lépp moom da ko ñor ba nga xam ne projet bu mu jeexal bëgg a sumb beneen fi mu ne nii du ma wax ay projet parce que moom mun na ko waxal boppam du ma ci dugg mais vraiment ñi ngi koy gërëm bu baax gërëm li nag ci turu ministre de l'éducation nationale laa koy wax ak ci turu inspection d'académie de Dakar inspecteur d'académie de Dakar bi nga xam ne ñooñ ñooy samay kilifa teg ma fii pour may saytu éducation ci arrondissement Almadies diggante Ngor Wakaam Yoof ak Mermoz Sacré-Cœur dañu rafetlu lool vraiment engagement wu monsieur le maire ni mu fexee ba taxaw parce que école franco-arabe publique dafa nekk lu tumuranke lool ndakaaru dafi tumuranke du sax ndax autorités yi dañ ko buggul suñu soxla lay suñu litteel la torop mais dafa fekk ne ndakaaru dafa dem ba fa nga xam ne foncier amatu fi demande baa ngi fii mais amatuñu fu ñu tabax sax école loolu mooy problème mu Dakar mais autorité yépp fi mu nekk nii seen xel yépp ubbi ay école franco arabe publique la parce que xam nañu population bi soxla nañ ko bëgg nañ ko demandé nañ ko yittey population bi la mais monsieur le maire mi fexe ba nga xam ne fii au niveau de du de Dakar laa wax département de Dakar 19 arrondissement commune d' arrondissement yu nekk Dakar yépp ñaari école franco arabe publique moo fi am bi ñu fi njëkk a créé Cambérène la créer nañ ko ba ñu créé fa collège parce que école ba franco arabe ba xale ya dem nañ ba am entrée en sixième ñu def collège deuxième bi ñu am fii ci 19 communes d'arrondissement département de Dakar Ngor loo xam ne population bi yëpp dañ koo war a xam xam ni dañu fee am ñoom lu rëy dañoo réaliser lu rëy lu rëy leen fi réaliser moo tax damay gërëm bu baax di sant di ñaanal ñi nga xam ne ñoo amoon projet bi en 2002 en tête commencé di ko réaliser nekk ci di ko topp di ci sonn ba tey yàlla def mu sotti. bu baax di sant sama nawle yooyu ñoom nag dañ ma yóbbante ci maire ne ni ñu ngi koy gërëm parce que gis nañ ne lépp lu muy def léegi lépp lu muy def ci al ngor mu ngi ciy yónnee almadi seen wàll. nit ki nag da ngay wax te yàlla kese moo tax ma di ko wax ndax lépp loo xam ne am na dañ may woo ne ma ma jigéen defal liste pour waa almadi su ma defee liste waa almadi yi ñi bind yëpp ma yónnee ko mairie ba ñu yónnee leen ko ba ci pandémie bi mujj moo ci mujj macha allah lépp lu mu jox waa Ngor joxe na ko fa ñi nga xam ne bind woon nañ ñëpp jox nañ leen ko kon nag monsieur le maire waa almadi nee na ñu ngi lay gërëm di la sant ndax gis nañ sa taxawaay ci ñoom tamit lépp loo xam ne yaa ngi koy def Ngor Ngor ak Almadi benn bopp la rek kenn mënu leen xarñaar ñaar waaw kon nag ñun ñu ngi sant yàlla bu baax ñun tamit ñuy ay doomu lébu kon nag ñun fii la bokk moo tax nag Guèye il fallait que man ma ñëw ah yónnee la en tant que délégué de quartier des almadi wax la yóbbante waa Almadies. kon nag ñu ñaan ñi tu tànk yi fi ñëw tey yéen ani pour jàng yal na yàlla ubbi leen si barkeb góor gi yal na yàlla ubbi leen mel ni xale yaatu yu sore ba lii si fii ñu bokk si ñi fi gën a mën bu nu leen xeeb nag ay tànk lañu yaara nañu si waaye alhamdulilah rabbil alamin laahu mooy maye ko nag nu ñaan déggoo gi ngor nag ak déggoo moo ko jik séparation jigu ko séparation jigu ko nañ ma bal àq nag man day ki ma xawoon naka jagoon samay kàddu yu génn si ma gémmañ dama ko naan respecté ba moo tax kat bi ma waxoon ko le 3 septembre bi ñu jëkkee o pour seet pour laaj ñu suru góor gi ki kan tudde pour ñu xaman nu ka maa ngi woon ba projet bi nga xam ne moo tax ñu dajee fii tey ngir ubbi école boo xam ne li muy jàngale mooy diine ak àdduna franco arabe maanaam da nga xam sa diine ba pare da nga am dépasse parce que boo jàngee français ci ngay mën a bind ci ngay mën a calcul xale yi waruñ leen a jàngal kese alxuraan parce que boo mokkalee alxuraan da ngay war a dem ci bitig bi calculer jaay dañuy yónnee lettre nga war ko liir léegi nag moo tax ñu def franco arabe pour yow nga nekk paaka ñaari bor kon loolu liggéey bu mag la boo xam ne yàlla ci kàttanam ak ci dooleem ak ci li nga xam ne moo koy may ku ko neex zalika fadullah yuti man yasha moom la soob yàlla def ñu am ko ubbi ko ci jamono boo xam ne mooy jëmm ji ñuy wax ahmadu ahmadu mooy ahmadu rek fala maa jaay ismu ahmadu alquran indi na ko yàlla indi ko ci loxoom mu def ci itte bu rey bañ toog di ko ubbi tey kon wax di yàlla monsieur le maire dañ leen ndokkeel tey di xam ne lii se sa compte lañ koy versé parce que sa itte la sa góorgóorlu la ñu ngi ñaan yàlla yàlla may la bi yeneen i yi te ñu ngi sent lu gën a rëy lii te incha allah yàlla dana ko def